Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 7 août 2024 suñ fa jógee dañuy dem fële ca Maroc ginnaw walu culture ñi fekk ji fa ki nga xamanteni moy la voix d'or la diva kumba Gawlo sek ginnaw bu mu démé fofu ca festivalu Rabat kumba Gawlo dal a mis du feu et du flamme Fofu nga xamanteni moy festival festivalu Maroc ginnaw premier festival bu mo waroon dem fofu foofu Kim Sacha ñu mujj ko reporter ginnaw stade bu fees del ba mu am ay buuxante ba fukki nit daal di ci faatu ñu dal di reporter li nga xamanteni mo moo am fofu Kim Sacha si lolu dal le continuer foofu ci Rabat muy Maroc ginaaw loolu dal kumba Gawlo mom mo produire ci ben concert bo xamanteni moy la nuit du 5 ba le 6 août muy prestation bo xamanteni dañ ko apprécier demel ko dal ci ben cadre bo xamanteni muy esplanade bi nga xamanteni mom lañu la ñu doon nemee Bouergrette Stage mu nekk foofu ca xolu Rabat nekk ca Maroc ginaaw loolu dal muy capitale politique administrative bu Maroc kii di waykat bi di doomu Sénégal di la chanteuse la voix d'or Kumba Gawlo Seck mom ci bopam mo nekkoon foofu ci royaume chérifien yi ginnaaw bi nga xamanteni dal lepp lo xamanteni tontu ko favorable rassemblement jëmale ko ci invitation bi nga xamanteni ak amé ah, dañ ko ko adressé visé ko jëmale ko dal ci obtenir ben participation ci troisième édition festival rap africa jëmale ko dal ci ben public bo xamante dañ leen accueillir ba noppi ñu dal di estimer lepp lo xamante taille tay tey mën nañ ko am ci cinquante mille spectateurs qui di la diva kumba Gallo Seck une fois de plus de tenir en place de yëkkati baar bi immense talent bo xamante artistique mom la wone ñu de ko jëmale ko ci faveur muy juroom ñaari morceau yo xamante bu ci nek suñu sukkandikoo dañ ko xam à du grand public marocain ginnaaw bi ñuy référé surface moy la communauté sénégalaise bi installé woon fofu ci Maroc dal di briller jaarale ko dal ci forte présence bi nga xamante mom moom lañ tegoon en place dal di communier jëmale ko ci ben foule marocaine bo xamante tay tey mën nañ jàpp lu ci ëpp yenen nationalité la ñoo ñëwoon pour découvrir li nga xamante moy mooy visu la diva d'or de Coumba Gawlo Seck ginnaaw lool dal satisfaction lañ fa am mbégteeg bànneex ci rendez-vous bi nga xamante tay tey mën nañ ko tuddé une heure passée jaarle ko dal ci ay compagnie yo xamanteni lepp lépp euh, lu mu justifier ci chanteuse sénégalaise bi ñu gën ko xam ci li nga xamanteni dal moy plan africain international mu daal doon kenn nga xamanteni fédératrice lay doon jëmale ko ci ay nation ay ambassadrice de la paix jaarle ko dal ci li nga xamanteni tay meun nañ ci sukkandiku ci soirée bi nga xamanteni ni amal na ko muy drapeau bi nga xamanteni ñaari réew xarit yi di Sénégal ak Maroc ñu ko am depuis de longue date mom la dal di yëkëti fofu mom kumba gawla sek di l'artiste sénégalais dal di brandir ay loxom yëkëti ko ci kuuru li nga xamanteni moy concert bi jëmale ko ci succès mu daldi woné ay preuves yo xamanteni tay li di fraternité interafricaine jëmale ko ci benn point de vue bo xamanteni à chaque fois mën nañ ci miser jëmale ko dal ci ay services yo xamanteni tay tey exclusive lay doon pour que ñu mëna a en commun mu doon benen prestation bo xamanteni Kumba Gawla Gawlo daf ci resté ñukoy xaar jëmale ko dal ci li ñu prévoir fofu ci Larache mu doon benen ville bo xamanteni mi nga nekk ci Maroc ñu war ko abriter une première fois muy partie du jëmale ko ci festival Afrique bi qui dit artiste sénégalais Zal dina produire que tay le 7 et le 8 août 2024 fofu Maroc encore Kumbagaolo, Gawlo s'est fait parler du Sénégal fofu festival bu amone fofu Rabah Rabat plus particulièrement à Maroc en tout cas avec cette morceau il a enflammé le public tout feu et tout flamme <laughs>